Salut la famille, j'espère que vous allez bien gannaaw bi leen nuyoo jox leen seen wàccuwaay tey nag ñoo fi ñëw nar a def benn analyse bu ndaw ci point de presse bi nga xam ne nii Adji Sarr def na ko démb mais avant ñoo dugg ci sujet bi dañuy ñaan képp ki nga xam ne nii yaa ngi seetaan suñuy vidéo te abonné nga abone ci chaîne bi aimé vidéo bi nga wax ñu saxalaat ci commentaire yi mais démb gis nañ point de presse aji Sarr mu génn wax ak sénégalais yi. mais am na sujet boo xam ne nii doon nañ xaar mu wax ci muy wàllu ëmb bi ndax gis nañ ne ba mu génnee ci confrontation bi taxaw na wax ne musul wax ne dafa ëmb. sama patron ba ma ko waxee ne dama ëmb ba ma defee sama test. ma ko ne dama ëmb mu ne ma kan moo la ëmbal ma ne ko Ousmane Sonko mu ne ma. effectivement sama xel nii la demoon enregistrement yaa ngi sama téléphone. mu doon loo xam ne nii choqué na Sénégalais yu bëri ndax bi coow li di soog a juddu deux ans ci ginnaaw aji Sarr dafa taxawoon ne dafa ëmboon Sénégalais yi yëpp toog di xaar aji Sarr mu wasit ñu mën a gis doomam bi mais vu que ne moom taxaw na ne musuma wax ne dama ëmb mu doon loo xam ne nii daf ñoo choqué ndax démb ci point de presse Adji Sarr bi gis nañ Adji Sarr bu bees ndax souvent bu ñu doon gis Adji Sarr muy wax dañuy gis Adji bu waxee li jékki-jékki waxaat lee. wala mu nekk di sëgg wala mu nekk di patiner mais dañoo gis na ne Adji Sarr préparé nañ ko bu baax ci wàllu communication ndax Adji Sarr li mu doon wax yëpp mu ngi doon xool caméra bi gis nañ ko mu gàkk quelquefois mais. dañuy gis ne ne Adji Sarr bu préparé nañ ko bu baax ci wàllu communication mais lan lañ mën a jàpp ci discours Adji Sarr bi. yow Ousmane Sonko yaa ma tooñ tooñaat ma ma yóbbu la ma porte la plainte ba ma lay porte plainte nag su ma xamoon ne dégâts yi am Sénégal dina fi am kon duma la porte plainte. ci commencement bi gis nañ ne mu ne bu nekkoon xamoon na ne bu porte plainte Ousmane Sonko dégâts yi lay def kon du ko def. ndax ku nekk xam na ne coowal Adji Sarr beeg Ousmane Sonko dafa jur ay dégâts yu mag ndax quatorze personnes ñàkk nañ ci seen bakkan ak bagage yi nga xam ne nii yàq nañ ko ci Sénégal bus yooyu noonu mu doon loo xam ne nii tamit sénégalais yi duñ ko fàtte sénégalais yi tamit ñu ngi xaar justice def liggéeyam ci loolu ñu xam ñi ñi ci ñàkk seen bakkan fan fan la ñuy mujjee ndax tamit seen famille ñu ngi leen di jooy ba léegi te noppeeguñu deuxième point bi nga xam ne nii jàpp nañ ko ci li Adji Sarr wax nee na dégâts yi nga xam ne nii porte plainte bu mu porte plainte Ousmane Sonko def na ko teewul mu ngi dëggal boppam bu baax ci accusation yi nga xam ne nii def na ko ci Ousmane Sonko en plus mu ngi ñaan procès public ndax tamit ñun sénégalais ci boppam ñoo gën a soxla procès public ñoo mën a xam dëgg bi fan la féetee ndax dèjà moom fii la génn ne dafa ëmboon mu toog ba mu yàgg ne musul wax ne dafa ëmb en plus sénégalais yi dañ nañ ci coono bu metti ñii ñàq nañ ci seen bakkan ñii yàq seen alal yàqu na ci boobu ba léegi sénégalais ñu ngi nekkoon ci fitna yu metti deux ans jàll na boobu ba léegi ñu xam affaire yi fan la féetee te dafa jot tamit nag affaire yi leer sénégalais xam bu baax dëgg bi fan la féetee ndax coow li yàgg na à chaque fois coowal Adji Sarr ak Ousmane Sonko bu jugee rek sénégalais dootuñu nekkati ci jàmm sama gaay vidéo bi tey loolu la woon di leen jox di daje ci beneen yoon ci beneen vidéo jërë ngeen jëf.